di leen wax massa ci xiif bi ak mar bi nga xam ne dara waralu ko lu dul bëgg yàlla topp yàlla ak jàmm yàlla eh, di wax alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alfatih xaatim nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim wa radiyallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajmain wala hawla wala quwata illa billahi al-ali al-azim ya immati cheikh ihdur lana bi hada al-mahdari wal taxtafir bi nazratin taati lana bi zafar maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen jottali yónnantu sëriñ bi nga xam ne kenn umpalewul ko ci jëfam ci jukkoom ci xam-xamam ci bëgg taalibe ci bëgg jaamu ci bëgg Sénégal ci bëgg lu baax muy Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass ki nga xam ne mooy xaadimul ummat bi Muhammad sallallahu alayhi wa man nag ndaw laa rek doo xam dañ ma yónni xaw ma mat naa ndawam déet waaye ba ko waxee korti korti naa ba agsi ci yéen may sant yàlla bu baax yàlla mi nga xam ne moo ñu kàttanal ba ñëw janoo ak yéen ma ànd ak doomam Cheikh Abdoulahi mi nga xam ne doom la ci Cheikh Mouhamadou Mahi ak sama doom Cheikh Ibrahim Niass ñu ànd ak euh, Youssoufa Thioub nga xam ne bras droit am la ak gay bi nga xam ne mooy sëfoor bi mu yónneewaat doomam muy bàyyi xalifa nga xam ne bi ñun ñëpp toogee gis ngeen ko mu ñëw te papaam moo ne ko bàyyi li ngay def yëpp nga ñëw loolu yëpp day wane fi ko mbir yi toll moo tax alhamdulilah rabbil alamin di ñaan ñun ñëpp ñu sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin ndax eh, li nga xam ne moom mooy télévision bi ñu nar a ubbi nii am sikk amoon na bu yàgg waaye tey lañu ko yàlla teg suñu loxo moo tax ko fekkee rek war nga sant yàlla lu tax ma wax loolu mooy dafa bokkoon ci mbébét yi nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu daf ko yàgg denc ci xolam di ko dundee di ko misère di ko nelawee te xam na ne lu am na ba pare waaye xam na ne jamono mooy ñëw ba mu ba yàlla amal ko jamono boobu mooy lii moo tax ci kaw loolu bala maa dugg ci waxtaan bi damay nuyu ñi fi teew ñépp di jiital ci néew bi comme ni ma ko sëriñ Mahi Ibrahima Niass sante soo demee nga nuyul ma mbooleem xalif xalifa général bu nekk ci Sénégal nga wan leen ni ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk benn liggéey ñoo bokk benn jëmuwaay ñoo bokk benn yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo bokk benn téere muy alquran ñoo bokk benn kaaba gi muy suñ kaaba gi ci muy xibla ñoo bokk lépp ñoo bokk alxuraan kon dëgg-dëgg ànd boobu ànd bu yàlla tëral la ba pare pour ñu appliquer ko nag loolu yomb la war a nekk moo tax ma leen di ziare di leen ndokkat ci koor gi di leen nuyu soo demee nga nuyu ma leen ñoom ñëpp beneen bi mooy mu ne nañ ma nuyul nga xam ne mooy président de la république nga xam ne moom la yàlla teg muy amee Sénégal te suñ ko nuyoo nuyu nañ peuple bi yëpp comme moo leen présenté comme président di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi liggéey góor ñi ak jigéen ñi ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo taxaw di liggéey pour seen réew di liggéey pour le développement du Sénégal ñoo ñëpp maa ngi leen di encouragé di leen wax massa waaye di leen nuyu di ñaan yàlla yàlla oyofal leen en yi nga xam ne moom la leen en te yàlla ubbi mbooleem wërsëg yi saafara mbooleem jàngoro yi di si nuyu ki nga xam ne moom la président envoyé muy Pape Malick Ndour nga xam ne xam nañ famille bu baax ñoom ñëpp dégg ngeen fi wax ñoom ñëpp ay taalibe lañ ci la juddu baayam yeeg maamam yëpp mu ngi juddu ci nekk ay taalibe Cheikh Ibrahim tarbiya foofu daan dem Koosi di dem Taïba di liggéey ba ñëpp xam nañ taxawaay yooyu moo tax wax yi nga xam ne wax na ko fii dëgg-dëgg laaral la su waxee woon neneen la ñuy jaaxal waaye dëgg-dëgg li dara bett ñu ci xam nañ ne sax li mu bëgg wax yëpp waxul ko waaye di nuyu di bi nga xam ne bras droit la woon ci xalifa Cheikh Amadou Tidiane yi yal na ko yàlla gërëm rahmatullahi alayhi liggéeyal na ko bu baax am na expérience yoo xam ne yu bari am na ko ci nekk bi nga xam ne nekkoon na ko ak moom ba yàlla def sëriñ bi comme dafa nekk nit koo xam ne dafa am vision te bëggul di xatal dara yu ñëwee daf ko opp mu ñëw dimbalante ak Cheikh Abdourahmane ci liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk di nuyu Cheikh Abdourahmane bu baax ndaw mi nga xam ne fonctionnaire la ci réew mi waaye mu xadam la ci pays bi te waxtu ne mu ngi wane mbëggeelam cofeelam ci famille Cheikh Ibrahima Niass te yàggut rek ci fan yi wane na ko parce que invité na xalifa bi moom mboolem ñi nekkoon ci firi alxuraan mi ci mbedd mi ak doomi bàyyi seti bàyyi ak taalibe yi ak muqaddam yëpp ñu ñëw mu invité leen ndogu lu lu yaatu boo xam ne keroog si seen si seen yi dëgg-dëgg yi caalit ci bu baax ngir neexaay ndogu li rek di wax ne yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla gërëm di nuyu Maxtaar lu soleil nga xam ne moo nekkoon boo euh, amoon euh, micro bi micro central bi di présenté nekk journaliste yàgg nag ci soleil di liggéeyal père bi ba nga xam ne jamono bi nga xam ne pour génne lu jëm ci bàyyi dafa jafe man liggéey na ci ak man ay at yu bëri war na mat léegi fanweeri at su dee jegewu ko waaye yooyu yëpp moo ci daan dimbaliwante ak man yi ñu bëggoon a jàllale yëpp ci communication ñu koy jàllale ba yu ci bëri nit ñi jot ci kon dëgg-dëgg su fii amee parole bi vraiment jox nañ ko ku ko ku ko mérité ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla gërëm di gërëm suñu suñu jàppaat Babacar Niang mi nga xam ne moom dafay yaatal liggéeyam ba nga xam ne léeg-léeg day bokk ci ñun léeg-léeg mu rëcc dem bokk ci ñeneen taalibe yi di liggéey rek ci kayit yi ci xalaat yi te loolu yëpp xër ci pays bi rek moo ko wan léeg-léeg mu nga Sénégal léeg-léeg mu nga Europe mu nga Maroc yooyu yëpp waaye su demee ba ñëw rek dinañ indi résultat yoo xam ne dafay wóor ne dëgg-dëgg liggéeyal pay bi rek moom moo ko yëkkati woon moo tax ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Cheikh Aboubacar di gërëm mu xadam fi teew yëpp di gërëm professeur yi seen wax yi ñëpp dégg nañ ko muy wax yu leer yoo xam ne xam-xam bu leer la yoo xam ne commu communication bi jàll na parce que comme li ñu wax communication dafa doon loo xam dafa am solo surtout nag ci jamono bii ñu nekk soo gisee Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ci jamono kaset yi nga xam ne moo ci am alxuraan moo ko doon enregistré boppam ziyaara yi ak gàmm yi moo ko doon enregistré boppam am na ci sax yoo xam ne dafa mujj yàqu mais suñu jotoon yépp da nga dégg lu doy waar waaye nag ba léegi dafa créer ci nit ñi ci xol ak seen xel li mu daan wax yëpp dara manqué ci parce que yëpp yëpp dugal na ko ci biir taalibe mi ak muqaddam moo tax fi mu ne leeri Cheikh Ibrahima dafa fees ci àddina bi ñëpp a jot radiallahu anhu te créé woon na sax benn journal tuddee ko muslim africain les musulmans d'Afrique créé woon na ko ba génn ci benn kii bi njëkk génn nuska yi ci njëkk a móol Mouhamadou yi moom la wax ne ko moom la formé moom la wax ne moom mooy directeur bi seetal jamono boobu ni mu yàggee bi ñu créé journal bi mu ne Cheikh Mahi yi moom mooy directeur bi directeur boobu ñu génne benn journal ñu taxaw foog ne jeex na mu jàllar bi ko journal boobu mu soppali ko rajo ci Serigne Mahi yi mooy xam nga ne démb mooy tey mais li fi nekkoon rek moo fi nekk kon sant yàlla rek moom moo ñu war moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax te xam ne dara demul fenn ma ne àddina bi nag li tax communication am solo mooy dafa am ñaari groupe yu fi nekk jàkkaarloo ñi nga xam ne mooy xisbu seytaan ak xisbullah xayrul bariyati ak sharul bariyati ñi gën ci ci ak ñi gën a yées ci mbindeef ñi gën a yées ci mbindeef nag dañoo toll ci jamono bi boo xam ne ñoo gën a bëri wax ñoo gën a jël ay moye ñoo gën a am jël itteel joxe loo xam ne du dara di ci sonn guddeeg bëccëg toog suñu waxee ba wax ji jeex da gis ne waxuñ dara suñ jëfee ba jëf yu jeex da ngay gis ne jëfuñ dara lu dul yàq rek loolu moo tax jamono bii nga xam ne télé bi ubbeeku na dëgg-dëgg te télé bi am na rôle bu baax bu mu joué boo xam ne jullit yëpp dinañ ci jëriñu ma ne dafa am li ta communication am solo mooy temps yi dama toog dégg sëriñ maa ngi dañ ànd ñu ko pour projet yi nga xam ne mu ngi ci boppam bi nga xam ne dafa nekk ci réew mi te réew mi am njiit mu ne moom il faut mu avertir borom ki ki nga xam ne mooy président bi comme ni ko Baye daan defee parce que Baye daf daan def su daan tukki sax radiyallahu anhu bala moo dem ci benn réew dina avertir président bi projet yi nag mu ne moom dana ko def te mu ngi mu ngi ciy def lu mu man waaye dina dem yëgal président bi ne projet yi mooy yi nga xam ne loolu laa bëgg bi ñu demee ñu toog waxtaan génn kuñ pale bi sax ñu dégg rek ñu tasaare ci réseaux sociaux yi sëriñ Mahi dem na pale ba jox nañ ko ay millions ñii di lim ma ne waaw kon est-ce man li may dégg nii ñii la demee li may dégg yëpp ñu koy wax nii la demee kàcc yi nga xam ne man maa maa ko xam maa ko fekkee kenn nettali yu bokk kon dëgg-dëgg nit ñi war nañoo delluwaat ci ci yàlla te xam ne àddina amul solo ma ne Cheikh doon wax bi fàttaliku suñ benn benn séeréer moom ak Serigne Macky ñoo bokk ndey ak baay mu nekkoon soxna ci benn taal ba bàyyi bu ñuy wax Cheikh Mouhamadul Misri moo jur xaajul Misri mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko léegi lala Aysa dafa ma nettali mu ne ma waa ana ana sa sa xarit bi ma ne ko kan mu ne xam nga ko Cheikh Mahi ma ne ko ah, mu mu fa di doy waar rek ma ne ko waaw moom de kéemtaan la de mu ne ma xaal ma nettali xaw xam naa ne lii nettali ko waaye lii man maa ko fekkee ci moom ma ne ko waaw mu ne ma dafa am benn jamono bi mu nekkee étudiant nekk Égypte dafa ñëw Mauritanie comme jamono yooyu étudiants yi léeg-léeg dañuy dem Nigéria wala Mauritanie suñu dellu Nigéria dinañ yóbbaay loo xam ne dinañ ci dimbalewante ak étudiants yi nga xam ne amul bourse su ko defee. li ñu am day ñëw rek indi ko foofu mu ne mu ñëw Matam laana bi mu ñëwee Mouhamadul Misri dalal ko ci benn néeg di ko teral mu ngi am benn mat la bu ñu ko tegal mu ne ñu dajale addiya ju bëri parce que xam nañ ne fi mu jëm lii muy yóbbu dool pour moom waaye pour njaboot bi yëpp la bi ñu ko dajalee addiya yi mu ne mu jël ko daal di yëkkati euh, dàppilal bi dugal ko ci bi mu ko ci dugalee ñu toog ay fan di ko teral muy lekk di naan di julli ji ñuy waxtaan ci xam-xam ba ñibbi jot mu ñibbi bi mu ñibbee comme néeg boobu dañ ko gàdde woon pour doomi Cheikh Ibrahima ak setam yi laa mu ne mu ngi tëj néeg lu mat weer ñu ko tëjee lu mat weer ñu toog ñu ne am na kenn ci njabootu baay dafay ñëw ah buñ ko waxee rek moom itam bis ne ko kon demal defar néeg ba mu dem fëgg néeg bi defar di defar ba ci dàppalaat bi mu yëkkati rek fekk xaalis bu mu ko joxoon yëpp mu ngi ko dugal ci ci ron lal fàtte ko fa mu ne ko ah indi xaalis mu ne ko xaalis baa ngi nii mu ne ko lii fu mu jógee mu ne ko ah ci dàppalaat bi fii mu ne ko ku fi duggoon ci diggante bi mu ne ko ba fi Cheikh Cheikh Mahi génnee ba léegi maa ngi tëj néeg kenn dugg fa mu ne mu ne ko zaak Mahi xatt mu ne ko Mahi dëgg ngi noonu donc ki mel noonu nga xam ne xamewu xeer ak euh, suuf ak xaalis nañ bàyyi jàmbur waay bu ci démb rek bu ñu teg cent millions rek la génne joxe ko te mënoon na koo téye ba pare na nit ñi teg leen te man dama ci am ay exemple yu bëri yoo xam ne dëgg dëgg daf ko wane kooku nag moom mooy ki nga xam ne yàlla daf ko joxoon mu nekk boroom xam-xam doyloo xam-xamam jamono baay radiyallahu anhu abdullahi cheikh alxaaji abdullahi cheikh ahmed Cheikh Tidiane yi ñoom ñëpp seen jamono mu ngi nekk ak ñoom mais dafa nëbbatu rek di leen xidma rek lu xew rek dafay ñëw xidma leen su payee rek nëbbatu bëggul sol rafet bu wut wax ca kaw lu ñëpp dégg waaye mu ngi ci suuf rek liir di wéetal yàlla ba yàlla def ko mu nekk xalifa yooyu nag nga xam ne daf koo dencoon ci biiram loolu mooy génne loolu lay génne moo tax yi xew nii muy dem di régler ay problème ci yeneen réew ay Soudan ay Mali Nigéria Ghana fu nekk loolu dafa ñor comme ci moom moo tax xam na bu baax li muy def lan la li ñuy ñaan rek mooy nit ñi nañ fere pour comprendre ko ànd ak moom ci liggéey bi parce que moom nee na liggéey bi moom moomu ko waaye liggéey bàyyi moo tax bi mu toogee dafa santaane ne nit ñi liggéey nañ dem ci tool yi jàngkat yi nañ dem ci école yi université yi lycée yi mag ñi nañ dem jaamu ji yàlla yooyu rek moom ci la film nit ñi ba nga xam ne dëgg dëgg am na lu bari loo xam ne euh, soppi na ko loolu nag daf ko jëlee ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu mi nga xam ne moom tam dafa jànkuwante ay jafe-jafe yu bëri ci bitim réew rawati fii ci Sénégal ndax ñi ko am indépendance dafa jug dugg ci àddina bi bi mu demee gars yi daal di remarqué liggéey yi muy def ak mbooloo yi koy topp anglais yi ñoo ko njëkk seetlu ñu signalé France ne leen waajooju waaju dangereux la parce que nit ñaa ngi koy topp te xamul ni ñu koy toppee waaye comme chef religieux la woon comme ni ko professeur waxee léegi chef religieux yi li ñooñu daan bind l'islam noir yooyu dañ daan topp sëriñ si rek ak diine pour diaboliser ko kuñ gis rek nga am charisme rek dinañ jéem a yàq ñaawal sa der di wax comme yi xew léegi nga xam ne dañ koy wax te teguñ ko fenn ñooñu ñoo ko njëkkee ba yàlla xalak la daan donc su judduwaatee tamit ku ne xam na fan la jëm moo tax euh, yàlla dox na bu yàgg digganteem ak ñooñu ma bi mu demee Nigéria xam nga dem nañ ba am na benn jamono boo xam ne mille neuf cent euh, avant mille kaw avant am na benn jamono boo xam ne dañoo interdit Cheikh yàq nañ deram yàq-yàq ba dañ koy interdit ne ko amoo droit pour dugg Nigéria hmm. fekk mu doon pare pour dem sànni ëwal wax ko mu ne ko ah baax na ba booba moom xam nga moom moom mbiram daf koo leer guddeem ak bëccëgam ak ñett yem waaye bi mu ne ba booba bu màgg a mu ne moom moom daf doon séentu rek di compter si yi rek ak semaine yi jàll di xaar ba booba la lay firi waaye gis nga ba boobaa dañoo toog rek am benn mbërëm soldat moo xam ne ci ponkal ak ci gudd ak ci doole kenn xam nu mu toll te du julli sax ñu koy wax Hiroshi kooku mu ngi ci histoire yi Hiroshi moom moo dem def coup d'état noonu ñu bàyyi nekkoon foofu di yàq rek moom dafa xëy rek rajo yi ñoom ñëpp mu nga xeefar moom yenn sentiment yi sonal ko bi mu leen rayee def coup d'état daal di toog nekk président. mu invité Cheikh Ibrahima ne ko dama bëgg nga ñëw date bi jot a gudde ba booba gi ak see gudde mu invité ko bi mu ko invité ne ko dama bëgg nga ñëw Nigéria nga dimbali ni parce que dama gis liggéey bi mu fi def mbooloo yi ni leen changé nit ñu bon ñi daan jaamu këram di rayante gis nañu daal am na ci mbooloo mu bëri moo xam ne ni ñu leen changé ñuy jub ak ni ñu leeree di jaamu yàlla vraiment yow rek yaa war a dugg Nigeria ne ko ñëwal ah ba date bi jotee ñu préparé bàyyi jël avion am dem sooy seet su fekkee yow ku yàgg suivre euh, ay photo baay ak yooyu am na yu mu ci génnewoon comme ni ko euh, ministre Malick doon waxee man depuis 2000 ci laa si benn euh, kii internet di ci def yooyu yëpp. am na ci benn photo boo xam ne soo yàggee seen photo bàyyi bàyyi mu ngi toog ak benn soldat mu ngi soo benn manteau bu ñuul di di signé soldat baa ngi toog mu toog defe naa ne ngeen ko seetlu muy signé boobu li mu doon signé mooy heure bu la neexee nga dugg Nigéria heure bu la neexee nga génn parce que Nigéria yaa ko moom loolu yëpp laa wax c'était en 1966. muy réaction bi njëkk a wan gaa yooyu ci jamono boobu léegi nag bi loolu amee am ñu ci fii bi ñu fiiree ñu toog rek ñu tasaare entre Nigéria et Niger ci diggante bi bàyyi dafa taalif benn euh, risaala mooy risaalatu tawba boobu ngay dégg bi mu defee risaalatu tawba jaam bu tuubal boromam di wan nit ñi ni ñu tuubee seen borom mu tuubal yàlla tuddee ko risaalatu tawba noonu yi ci lañ am occasion daal di tasaare comme ni ñuy wax ci communication rek ñu tasaare rek comme ni bàyyi doon dugalee seeni doom ci diine ji ñii seen tarixa yi jugee ci ñëw ci bàyyi ñu daal di jël risaalatu tawba boobu ñu jël tuub bi ne risaalatu tawba bi li ci Cheikh Ibrahim jublu mooy dafa tuub parce que nee na génn na ci tarixatu tijaani mu tasaaroo am benn professeur bu nekk Niger kuñ naan wax euh, Aboubacar Diarra mu bind bàyyi benn lettre di ko laaj ni ko waa li ma dégg ne dangaa génn ci tarixa bi nag ci la ko bàyyi daal di tontu risalatu ñame la lettre de ñame lettre boobu li ko bàyyi tontu waxu ko sax ne ko du génn dugg naa wala génn naa waaye def ne ko lan mooy kaay ma wax la nag lan mooy tariqatu tijaan yi d'abord ne ko tariqatu du dara du dul istighfar salaatu ala nabi ak laa ilaha illallah yéen ñun jullit yëpp daf ñoo war pour ñuy appliquer li tariqatu tijaan wax parce que mu ne istighfar li mu ne li mu li mu leen njëkk a wax mooy faqrahu maa tayassara min alquran bët bu set na nga jàng dara ci alquran moo tax ñun fatihatul kitaab lañ koy ubbee muy umul quran mu ne waaw mu ne suñ defee fatiha lu ñuy def istighfar balu yàlla balu yàlla mu ne waxtu ne sa bër yaa ngi xool xamoo li ngay xool mun nga ci am bàkkaar sa tànk yaa ngi dem fi nga jëm mën nga fa am bàkkaar sa loxo yaa ngi téye li ngay téye am nga ci bàkkaar lu nekk rek ci yow mën nga cee jëlee bàkkaar kon tarixa bu ñëw ne la na sa borom dëgg dëgg tarixa boobu daf laa laayee biir moo tax mu ne laa buddale naa lu istigfaar kon ñun loolu rek moo ñu war mooy ñu balu yàlla mu ne salaatu ala nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu ila axir yàlla ak yónn yàlla ci boppam julli na ci yonantu digal ko malaaka yi digal ko képp ku ku gëm lu tax duñ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waaw laa ilaha illallah mu ne wattu sabbihu bukratan wa asilan del sabbal sa borom suba ak loolu mooy moo nag jawratul kamaal ak yooyu yëpp xëy la bi ñuy def ak maag yooyu yëpp mu ngi nekk ci biir loolu mu ne ko loolu kon dafa war képp kuy jullit waaye dong la sax dañ naan ñii tijaan lañ ak ñii rek ne ko te seetlu naa nag tijaan yi donc ay nit ñu ay ñu na sax de ne ko soo demee ci parlement yi ñu nga fa député yeeg yëpp soo demee nag fekk yi ñu nga fa liggéey développer seen réew te loolu Pape Malick mi euh, euh, exemple la ci en tant que ministre la jeunesse mu nekk taalibe Baay nekk tijaan ñëw bokk ak ñun lii nii dafay gën dëggal li Baye waxoon léegi nga gis ne tariqa bi kon c'est pour c'est pour tout le monde tous les musulmans tout le monde sax war a wax parce que ñi ñi ñi yàlla may chance rek ak ñu ñu mayul chance la waaye ñëpp ci léegi nag bi loolu amee ñu ne nag ah Cheikh Ibrahima tontu na Baye Niass tontu na Baye Niass tontu na am benn naar naari Mauritanie naar bi comme moom tam taalibe la te dafay toog ak ay morom naaram yoo xam ne xam nga naaru yi ñoom ñoo fi gën a am xorom ci saboté ji reetaan nii waa su ñëwee rek toog naar yi di ko cokkaas suñ toogee rek kenn ku ne rek ne man sama sëriñ moo def lii sama sëriñ moo def bi di kañ seen sëriñ yi rek naar bi noppi rek ñu koy def lu ba semaine benn bés rek ñu toog rek benn am ku ne ko waaye yow ñëpp a ngi wax yow yow si sëriñ bi moom moom lu mu def ak mooy kan mu ne ko ah loolu laa doon xaar ne ko xam nga kan mooy sama sëriñ ne ko ah, mu ne ko mooy Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne ñun surofa shérif yëpp. yi foogoon na ñoo jiite dina jeeg tarixa bi yépp bi mu ñëwee ñun ñooy fóon dàllam yi ne ko mooy waajur di nga xam ne fu mu ne tël kilifa yu mu fa di fekk kilifa àddaa kilifa diine ak yépp mu ne fu mu ne tël rek ñu ne ñu ne waajaan ñéppay booloon rek nangul ko ne waajaan te wax na dëgg parce am na benn année dafa dem Paris waaye dafa dem Paris bi mu demee ba ne tël ci aéroport Charles de Gaulle tubaab bi ñi amee ñi amee woon seen saag yi seen saag yi di daanu ñi seen wëlis yi di ñi ñii di xoole bay mbëkkante ñëw ñëpp di xool bàyyi rek benn pas tubaab bi ko xool ba mu yàgg mu ne mais celui-là c'est le roi de quel pays bàyyi mu ne ñu ne nee na yow yaay buuri ban réew mu ne waaye man kenn jaam su xew la jaam yàlla su xew la radiyallaahu anhu kooku mooy suñu sëriñ moo tax pour wax ci moom ak di joxe xam-xamam ak communication yi nga xamee dafa war suñu diggante ak nit ñi ci moom vraiment su dee banque de données rek la bu ñu jël pour def ko ci am nañ banque de données bu doy yóbbal bu doy boo xam ne bàyyi nañu ko fii radiallahu anhu moo tax euh, góorgóorlu rek moom moo ñu war léeg-léeg nga gis euh, ay nit yoo xam ne seen xol yi dafa xoomaat dafa réer te yàlla def leen rëbb yàlla na leen yàlla gindi parce que jar nañoo ñaanal parce que léeg-léeg nga gis koo xam ne ni muy waxee ak ni muy defee daf lay óor ne ki nattu yàlla moo ko topp waaye da gis ne ñooñu li leen liñ leen di fàttali rek mooy li wéykati arab bi waxoon mu ne montagne daf fee nekkoon di montagne am ay ay xale ay jeunes ñuy yéeg ci montagne bi di tëb di salaxante suuf di dàqewante ñu dem ba ci digg xale mag dem ba ci digg xale yi am ay soxna jot bi ñu amoon amatuñ ko ñu dem ba ci digg xale ya màggat xale yi dem ba ci digg mënatuñoo dox ñu téye ñu téye er. su ñëwee ci montagne bi bala ñu àgg ci montagne bi dañuy sonn di soox ak et er yi ba suñu amee suñu àggee dañuy xool montagne bi rek naan montagne bi jamono jamono am na jamono di nettali rek jamono mu ne ñu dem ba ci digg xale yi dee ñu suul leen montagne taxaw rek di montagne fa mu taxawoon bougé wul moom la mu nekkoon rek ci la loolu mooy problème yi sëriñ si ak ñi nga xam ne comprendre buñu leen ñoom li ñu nekkoon mooy diine ji kitaabullaahi wa sunnati rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam alquran ak sunna di ko jàngale di ci yar nit ñi di leen yóbbu ñuy bay ñu leen takkal ay soxna ñu leen di firil alquran ñu leen di tarbiye di ànd ak ñoom ci taw di ànd ak ñoom ci naaj di ànd ak ñoom ci problème di ànd ci mbégte di ànd ci màkka di ànd ak ci faas di ànd ak ñoom ci seeni réew biir dëkk bi di ànd ak ñoom ci naqar dëj di ànd ak ñoom ci ngénte di ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne rek ñu koy def ñoom ñooy ànd séddoo ko ñooñu ku leen bëgg jël waneen jël ay yeneen jukko ay yeneen bubb pour solo leen ko dëgg dëgg war ngaa seetaat sa bopp moo tax gars yi nañ delluwaat ñu seetaat bu baax seen bopp lu ko moy dana métti loolu moo tax euh, ñu ne il faut rek ñu fàttaliwante ci loolu communication nag li ci am solo mooy léeg-léeg nit mën naa wax dara mu téye nit lu mat fukki at wala lu ko ëpp di ko merloo wala di ko dugal ci yoo xam ne du noonu su demee ba at yooyu yëpp passé mu soog a gindeeku di réccu yoo xam ne ay ati at la ñun gis nañ ñoo xam ne ñu ngi tuub bàkkaar yi ñeent fukki at yoo xam ne bi ñu koy def dañoo foogoon ne ñoo nekk ci dëgg mais loolu communication bu maal bu matati rek ñu nax leen rek moom moo leen ko teg yàlla nañ ci yàlla musal te sooy seet da gis li tax ma ne Cheikh Abdourahmane am ngeen liggéey mooy communication bi fi nga dafa am ay yu sew yoo xam ne dafa war a leer suñ ko leeral ay nit dañ ciy sànku mooy gis nga soo demee Mali am na groupe boo xam ne ay rebelle mais dañu tuddee seen bopp Ansaarud Din addina bi ñi ñi ko jot suñ ne ansaaru diin jàpp ne ansaaru diin bii mooy ansaaru diin rek man am na benn waaye bu ñëw sax ba ci man mu ne ma ansaaru diin seen mbokk yooyu nekk Mali est-ce que danañ ñu gàmmu si ma ne ko ñu ñooñu amul ñoom ñoom benn affaire ñoom ay criminel lañ ñun ay jàng yàlla lañ te ansaaru diin bii bi ko bàyyi di créé radiyallahu anhu boobu amagul sax indépendance lii bu yàggul rek lañ ko créé donc may leen war ngeen a seetlu bu baax li ngeen di wax ak ni leen di trompé di leen jël rek jël ay wax rek ngeen gëm ko foog ne lii la te dara amul ci. moo tax euh, léeg-léeg tamit tey dafa baax trop ci ci mbir yi ma ñi nga xam ne bàyyi daf daan wax ne mu ne xam wax ak xam noppi ñoo fi nekk. mu ne xam wax lu mu xam rek wax ko su paree ci li xam rek wax ko mu jàllal di wax lu ko neex te li muy wax dara amu ci mu ne xam noppi moom noppi rek tuuti lay wax mu ne te xam noppi lim mu xam li xam wax xam yépp xam noppi xam na ko ba xam leneen lu mu xamul waaye moom ndànk lay wax waaye fi nii il est pour nit ñi li ñu xam te gàdde ko te muy njëriñ nañ ko génnee te télévision bi dëgg-dëgg euh, buntu la ci pour régler problème yooyu te lépp nag ragal yàlla ak sagesse moom mooy li nga xam ni moo ci dimbale nit ak nit ku bëgg a góorgóorlu ndax inna allah laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim peuple duñ changé mukk du dañoo fas yéene jóg yàlla mooy leen ko wax pour soppi seen bopp mais su fekkee da ngaa jub pour bëgg soppi sa bopp te ki nga tasee amul discours bi lay dimbale su boobaa da ngay trompé moo tax bàyyi yàgg teel a jóg préparé ay mbiram jox ñu lu leer loo xam ne ku ci jàpp rek communication boobu dana la dimbale dana dimbale say doom ak seeni doom ilaa ajalin musammaa moo tax loolu dëgg-dëgg lu jar lu ñu ci bàyyi suñu xel la gannaaw loolu Euh, sëriñ maax yi daf may faral nettali mu ne ma jamono bi ñu mu demee maa ngi soog a comprendre li tax bàyyi doon wax mu ne quoi mu ne Cheikh Ibrahim daf ñu daan wax ne ci jamono mu ne su ma dundaatoon danaa firiwaat alxuraan te ku nekk xam na ne jamono bi su fi fekkoon bàyyi dana firi alxuraan ci benn façon bu bees boo xam ne jamono bu bees bi moom moo tëddee noonu moo tax euh, dëgg-dëgg sant yàlla rek moo ñuy war ñun ñi nga xam ne ñu ngi nekk ay taalibeem parce que sooy seet borom xam-xam yu bëri problème bi ñu am mooy léeg-léeg gis koo xam ne dafay jàng-jàng bu bëgg mais problème bi muy am mooy information yi ma jëlee ci sama xam-xam bi ndax bu wér la ndax xadis bi wér la bi xadis daif la wala bii ndax xadis saxax la wala léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañu am problème ni xadis yooyu mais suñ ne bàyyi wax nga rek lépp wér parce que àddina bi ci boppam ñoom ñoo ko séeréer jox ko ci ay lijaasa yoo xam ne am na juróom fukk ak benn lijaasa yoo xam ne ay jàmm yàlla yu ponkal yu mag ñoo ko bindal yi di seede ne kenn raw ko ci xadis kenn raw ko ci firi alquran kenn raw ko ci grammaire kenn yooyu yëpp daf koo dajale ku mel noonu nag soo amee sëriñ bu mel noonu yow am nga noflaay li ngay dem di ko jéggaani feneen xo déglu lim la wax ba pare wala nga seet lim la wax ba pare nga dem di ko natti ci leneen li nit ñi wax su boobaa da gis ne dëgg-dëgg wax na moo tax sëriñ bi ne woon na ngeen ñëw su ngeen ñëwee ngeen wéttalee gaa yi nga xam ne ñu ngi liggéey euh, Cheikh euh, Abdourahmane ak Amadou Samb ak Ansaruddin ngeen taxaw dimbale leen jàppale leen ñu taxaw waaye man dama am benn idée mooy am na benn fond bu ñu fi ubbi woon ak bii nii suñ ko boolee est-ce liggéey bi du gën a yomb loolu benn question la boo xam ne mun naa ni ma déggee ngeen wax dëgg-dëgg ak wax yu leer yi ngeen wax da ngeen ci am solution à loolu damay laaj am na léegi bi ñuy teg alal Macky Sall mi tegoon léegi ah yow la alal Ousmane Sonko ah waaye doxate leen loxo ngeen ñu am jàmm ñun ñëpp dans ce pays kenn ku am na koo ko présenté voilà. léegi bon fi mu ne bu leen ñu ak Ousmane Sonko joxante nañ loxo léegi su fekkee ne. Macky Sall na nga waxal Ousmane Sonko su fekkee dafa bëgg soxna am nañ taalibe boo xam ne nañ ko may parce que loolu dafa dagan su fekkee leneen la tamit ñu xam ne jàmm rek la suñ jubloo ci jàmm rek jàmm ñëw moo tax eh, ñi may waxal ñoom maa wax ak ñoom parce que comme léegi seen kii yooyu nu mu tuddati ah <laughs> yi ñuy takkal nit ñi moo tax eh Macky bu pare waxumaa yow. Ousmane Sonko opposant waxuma yow mais man sama sama taalibe baay yi laay waxat waaye jubóo leen ah jubóo leen fekkee takk def ngeen dox ngeen doxal ko mu jeex bon ñu ngi gërëm di sant di ñaan yàlla réew mi yàlla def ci jàmm di dellu di gërëm sëriñ baaxe bu baax parce que moom moo ñu ci communication moo tax léeg-léeg dañuy communiquer mu jàll léeg-léeg ñu sax du jàll mais liñ jot a xam moom moo ñu ko xamal téere yi nga xam ne tamit léegi monsieur ministre mu ngi koy wax téere yooyu yëpp daf daf cee liggéey ak man parce que dama toog benn jamono ma ne il faut Sénégal réew la boo xam ne réewu français la te ñi gën a jàllale communication yi ñi gën a jàllale ay mbir ñu bëri ci français dañ koy jàllale te am na yoo xam ne ñu ngi koy wax yoo xam ne jaarul ci yoon te su xasee ba jàll rek dañ koy valider rek ne lii la moo tax ñu tamit foo ñu jóg di tra traduire nit ñi téere bàyyi di wax nit ñi li ñu xam ci bàyyi muxaddam yi nga xam ne ñu ngi sawar di liggéey ñu kiir leen ci ñoom tam ñu koy joxe seen daayira danga xam ne fi mel nii am na xale yu bëri yoo xam ne dëgg dëgg ñu ngi ciy liggéey am na benn xale bu nekkoon France bon dama fa dem mu ne ma man léegi damay def conférence ci Baye te jànguma arab ma ne ko ah lu tax mu ne ma sur livre yi ci yi moom laa dajale di ko liir ba mokkal ko ba xam ne fi mu dama ci def conférence ma ko waaw yo yoon bi moom yaatu na ku góorgóorlu rek yàlla yàlla dimbale la moo tax euh, noonu rek la ci ci kaw loolu ñu ngi dellu di jéggalu di gërëm mboolem ñu fi teew di leen wax ne message bi nga xam ne moom lañu sëriñ bi yóbbante lu ci manqué rek ci man la parce bi may ñëw samay nelaw doy koor gi koor suba ba ngoon lekkoor lu métti am na ñuy wax damaa ñeme koor waaye sëñ bi mu ne ma kenn ñemewul koor xanaa gëm yàlla rek waaye mu ne balal koor tam mu ne nga xëy rek ne nit ñi bon ñu fal président wala buur wala dara la nga xëy ne bon na ngeen or bu kenn lekk ne dañ naan waaw waaye suñ duggee nag loo ci xam moo tax yàlla rek mooy janaw yow di jëflante ak yow fa innamaa tuwalluu fa sawfa yu'tiikum moo tax euh, dëgg dëgg dëgg nañ bi rafet na ni seen yëngatu yi ak yooyu yëpp ak Amadou di wax ne. bi nga invité Ndao dafa ñëw teral ñu ñëpp man jël na benn enveloppe enveloppe bu duuf sax jox ma ko waaye comme enveloppe boobu dafa amoon ndey ak baay bi ñëwee dama ko delloo ne ko ne yaay ak ñëw ba pare <laughs> yaay ak papa ji laa xaar <laughs> bon loolu yëpp nag ay mbir la yoo xam ne waxtaane ay soppee ay nit ñu bëggante ay nit ñuy dimbaliwante ay nit ñuy fàttaliwante loolu la moo tax ñu ngi gërëm ñi fi ñëw ñëpp jël seen xaalis teg ko parce que xaalis ñëpp xam nañ ne xaalis dafa neex soo demee ci sëriñ si soo leen ko waxee ñu ne la waaw soo demee ci taalibe yi ñu ne la waaw soo demee ci président yi ñu ne la waaw soo demee ci jullit yi ñu ne la dafa neex soo demee ci non yi ñu ne la dafa neex moo tax Mawlana Cheikh Amadou Tidiane radiyallahu anhu mu ne xaalis képp ku la koy jox rek daf laa bëgg te ñii toog génne seeni xaalis ci koor gi bàyyi seeni kër dëgg-dëgg loolu mbëggeel rek lañ ko mën a firi moo tax yàlla na yàlla fayante ak yéen te am na njot yu rafet na incha allah yàlla dina fayante ak yéen sëriñ bi nag nee na woon su ma ñëwee naa leen gërëm naa leen wax ne mu leen di ñaanal yéen ñëpp yàlla waaye mu ngi ñaan tamit yéen ñëpp ngeen ñaanal ko yàlla ba sémb yi nga xam ne mu ci moom yàlla àggale ko ci kanam ñëpp te àjjuma ji gis ngeen xam nañ ne ñu bëri ci yéen am na ñu bëri ñoo xam ne ñëwuñ tey waaye comprendre nañ leen parce que àjjuma ji keroog nit ñi jugee ay Dakar ak Gambie fu ne dëkk bi fees ak tàngooru métti woowu te ba léegi bi ñu ñëw am na ñoo xam ne ñu ngi leen bàyyi Madina te dakaar leen jugee suñ fi nekkoon ñu kon yëf yi dana gën a fees waaye comprendre nañ leen mais nag dëgg-dëgg loolu mooy li nga xam ne loolu lañ fi indi woon di gërëm di dellu di gërëm ñëpp di gërëm mboolem xadam yi di ñaan yàlla ñu tëj kàddu gi parce que si seen si seen yi xam naa xiif nañ mar nañ te heure baa ngi jege si kon ñu jàng fàttee ak ñetti saatu fàttee ñaan yàlla matal mbir yëpp ci barke yonent bi yàlla na sëriñ bi jëlee ci ndam waaye ñun tam yàlla nañ ci jëlee ndam bismillah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح نور على الخاتم سبق ما سبق قولات إلى صلاتك نفسي وعلى العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ولقاء القاتل سبقنا askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di seen info international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 moo ko tax a jóg